ba tudd ci genn kilifa goo xamante ni moo yor moom lañ dénk kàddu kàddu yoon wi muy Cheikh Bass Abdou Khadre ñi ko ci tudd mu bari ñoo xamante ni ñi ngi génn di ci am luñ koy luñ ciy leeral di ci layal te mu li nga xamante ni moom lañ koy tuumaal ci suuf si ñun bu nu sanoon ñun ñi nga xamante ni ay taalibe Sëriñ Tuubaa lañ moom Cheikh bas na ut avocat boo xamante ni mooy leeral moo koy moo koy leeralal li nga xamante ni moom lañ ko tuumaal ngir ñun ñu mën cee am ak xel mu dal am ci ak ubbeeku ngir liñ koy tudd ci suuf si nga xamante ni ma nga nekk ndakaaru ñun amuñ ci loo xamante ne neex nañu daal ndax kàddu gi nga xamante ni moom lañ ko dénk muy kàddu xalifa général des mourides suñu sañoon lépp loo xamante ni dañ ko ciy dégg rek mooy li ko sëñ bi di digal mu di ñu ko wax ñu di ko jëfee ak fi ko sëñ bi di yabal mu di fa dem di ko di ko di ko di ko lijjanti kéem na ko sëñ bi bëggee waaw Cheikh moom dafa war a leeral dafa war a wut avocat boo xamante ni mooy leeral li nga xamante ni mooy li nga xamante ni ñu ngi ko ci ñu ko koy tudd ci suuf si waaw ñi koy défendre ñëpp li may dégg ñu di ko wax mooy day mel ni tuuma bi nga xam ne tuumaal nañ ko Cheikh Bass yoonu murit lañ ko tuumaal déedéet loolu Cheikh la engagé yoonu murit buñ tuumaal yoonu murit dara loo xamante ni joxuñ ko yoon wi yëpp kenn képp lañ ko jox koo xamante ni loolu mbiri ci moom la jëm loolu kon tuumaaluñ ko yoon wi moom lañ ko tuumaal moom moo war a ut bi leeral li nga xamante ni moom lañ koy tuumaal. Madiambal Diagne moom li mu def man ah, moom bu fekkente ni ah, lim tuumaal liñ wax ne moom moo ko moo ko wax tuumaal ko Cheikh Bass loolu moom lim ci war a def mooy génnee li nga xamante ni mooy mooy tuuma ji papier bi ñëpp mën ko gis xam ne li nga xamante ni euh, mooy li mu wax ci suuf soosu ñii nee nañ 9 hectares la ñii nee nañ 2 hectares la kon nag moom na leeral moom aussi tamit te Cheikh Bass bu utee avocat mbajamba dana leeral